sëriñ Cheikh Mbacke mu sëriñ Abdoul Hakim liggéeyub université bu Touba bi pàcc bu am solo bi nga xam ne moom la ci sasoo di ko liggéey muy jàkka ji ak bërëb bu fajokaay bi ñoom ñaar ñëpp ñu ngi ànd di dem liggéey bi taxawul benn yoon loolee di Pastef goo xam ne sëriñ Cheikh Hakim wane na ko ci ànd kook mbooleem njabootuk sëriñ Abdoul Hakim Mbacke gi ak mbooleem taalibe yi nga xam ne ñoom la dénk liggéey boobu boo jëlee jàkka ji daanaka gros bi noppi na ndax kule nañu étage bi ba noppi loolee lépp di Pastef gi nga xamante ni saa su ne ñu koy wane ci liggéey bi waaye noonee it lay doxe ci bërëbu fajookaay bi ndax foofu daanaka premier niveau bi fa lañ toll ba war koo kuule ci premier safar bi ginnaaw gàddaay ak yonent bi dëppoog le 30 septembre 2019 liggéey bi kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo ko yore àddunañ ci di leeral ñi nga xam ne ñoo di mbokki taalibe yi tolluwaay bi ak li nga xam ne moo ci aajowu. man maay chef chantier bi Alassane Dione man Alassane Dione kii kii taxaw nii mooy chef d'équipe bi. léegi moom euh, ñu ngi ci mosquée bi nii mosquée bi aussi def nañ première étage euh, première rez-de-chaussée bi léegi première étage bi aussi def nañ ko découlé nañ dal bi mu des euh, poste de santé bi bon poste de santé bi aussi euh, première redescence bi aussi pare na ñoo ngi ci dugg ci euh, kii ci première étage bi. ndax liggéey bii kat ñun ñëpp ñoo ko bokk sëñ Seex day suñ jëwriñ ci liggéey bi rek waaye li tax mu di ko def it sëñ doo tax mu di ko def képp kuy nattu sëñ Abdou Hakim boo boo ko déggee war ngaa ñëw jàpp ci sa doole. ak saw ñaq ak sa pëstéef xam ne liggéeyu sëñ Tuubaa la daal waaw